salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi moo bàyyi xel seen chaîne YouTube Tawfekh Production ñu ngeen sant bu baax di leen gërëm ci topp gi di leen ñaan ngeen yeesal seen i abonnement abonnement yi yéesal ko lu koy waral moo di dafa am ay liggéey yu ñu doon amal ci chaîne bi lépp lekk ngir gën leen a mën a jox li nga xam ne moom ngeen bëgg ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci topp gi di leen wax ngeen wéy di topp ndax li gën a neex ñu ci kanam. jaa